والقلم وما يسطرون ma sha Allah jërëjëf Cheikh Ousmane tënkal nañu li nga xam ne moom la fadilatu Cheikh doon tënk ci arab macha allah moom it nu di ko sant bu baax dafa mel ne waa c 3 ci tànn giñ tànnoon Cerno Ahmed Alpha darajaale ko bis bi ndax wane nañ ne liñ nekk ñun ak ñoom ñoo ci bokk benn benn taxawaay wala sax ñoom ñu gën ñu ci fiir ay nit yi alquran dëgg lañ ay nit yi xam-xam dëgg lañ fa jasakumullahu anna xayran su ko defee kon li ci des bariwut yaakaar naa genn kàddu lañ war a yëkkatiwaat nga xam ne mooy tënk jataay bi ndax niñ leen ko waxe woon la ko tàmbalee ci ministre de l'éducation nationale ba ci gouverneur de la région préfet bu département bi ak euh, sous-préfet ak mboolem kilifa yi nga xam ne yépp ñi ngi ci biir gox bi iyaa teewal leen war a yëkkati kàddoom ci seen tur su daaneele insha allah ñu woo sunu mbokk Serigne Abdoulahi Seck ngir mu présenté ñu sunu candidat yu baax yi nga xam ne ñoo doon taxawee liggéey bi ak fuñ bàyyi ko bu noppee nag ñu dugg directement ci joxe résultat yi ak jawaïs yi kon fadilatu seyxul mufattis ahlan bikum moom mooy wax ci turu IA di wax ci turu ministre de l'éducation nationale waaye di jëlaaleel kàddu nag mbooleem kilifa yi gox bi bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala almabuusi raxmatan lilaalamin sayidina muhammadin nabil ummi wa alihi wa saxbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa ñu jéem a tënk rek tuuti ci kàddu wolof balaa ñuy dellu ci pulaar incha allah Eh, lu jiitu ñu ngi sant ñépp di leen gërëm di leen nuyu di jiital cant bi eh, waa eh, c 3 ci turu gouverneur de la région de maatam ñu ngi ñëw fii tey ci turu monsieur le gouverneur ndaxte moom ci boppam moo waroon teew ndaxte mu ni amul cérémonie bu jiitu cérémonie alquran munul jiitu cérémonie bu ëpp dayoo bu ëpp solo ci cérémonie alquranul karim boo leen ko gisul fii dafa fekk dafa am empêchement loolu moo tax mu ni ma naa fi ñëw mu représenté ko ci cérémonie bi kon ci turam ñu ngi nuyu comme lu ma waxoon waa société c 3 ndaxte ñoom ñooy sabab lu fi am e, ci topp nuyu kilifa diine ñu fi teew ñu jiital ci kilifa diine yi e, sunu sëriñ Ceerno Amadou Alpha boo xam ni mooy parrain e, jour bi di nuy ñépp mboolee mu kilifa diina ñu fi teew xam naa mënuñu ne lim ñoom ñépp mais ñu jële cant yi rekk teg ci loxo sunu sëriñ Ceerno siidi Baas mu jotale ñépp ñoo xam ne ñu fi teew di kontaan lool ci ñëw ci jotaay bi ci turu gouverneur ndaxte moom gouverneur mu ni moom moo fi toogal président de la république moo fi toogal mbooleem ministre de la république mais surtout moo fi toogal ministre de l'éducation nationale ndaxte bu ñuy wax alquran ak jàng alquran loolu mooy jiitu ci éducation xale bu ñu waxee éducation et la formation nag comme que quraan moo ci jiitu képp ku si yëngu dafa mel ne yaa ngi dimbale yaa ngi koy dimbale moom monsieur le gouverneur parce que moom mooy responsable nguur bi fii ci région de Matam kon ci loolu mu ngi sant société bi bu baax a baax a baax ndaxte comme lu mbokk bi waxoon sànq bokk na ci responsabilité société ñu fi yëngu ci région yi mooy yu ñu tudd responsabilité sociétale d'entreprise RSE euh, amul vraiment yëngu bu ëpp solo ñëw ci alquran di ci jàpp loolu vraiment responsabilité bu ama ama am solo boo xam ni njiit société bi mu ngi koy def mu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla jàppal yal na ko yàlla taxaw ñu ngi sant ñëpp ñu fi teew xam naa xat kaddu bi du mun a gudd ndaxte taa bi mu ngi avancé eh, bandiraɓe caggal yettude allah e juulde e nelaaɗo meeɗen alayhi salatu wassalam en calmini ardiiɓe oɗo seete c3s kamɓe ngoni sabab e oɗo cérémonie goɗɗo ɗo en deftini heen ardiiɓe diine men ɓeeɗo jooɗiiɓe ɗo eɗen ciftina koye innde monsieur le gouverneur garɗen ɗoyat kono noon koko pular wiyata ko ko yiɗi toon nela toon en garata e cérémonie ko ɓuri welde men e ko ɓurɗen softande ko ɓuri oɗo cérémonie woni cérémonie concours bindugol alqouranil karim eɗen jetta oɗo gardiɗo société sabu ko mubadara tayiba heewi ko jiiɗen concours alquran mais ko ɓuri heewde ko tilawa quran ko ɓuri heewde ko kono concours bindol quran min kam e expérience am daɓɓo mi suwano yiɗi ɗum taw ko ɗo jimi ɗum ɗum machallah kumubadara ula min nawiha surtout ɗo en ɗoyno leydi meɗen ɗum noon emin jetta ardiɓe oɗo société no feewi sabu eɗen gandi jangde e bindol jaadata kala ko yehi hen woppi goɗɗum ɗum ɗaccata ko lakkin ko wiyete lakkin ko ɗum noon alay sago ɗeɗo geɗɗiɗe ne jaada ɓe mbi junngo woto foɓɓata حفظ القرآن جيد ممتاز لكن الحفظ مع إتقان الكتاب أحسن ولن قد نوم دون قولنا رند قرآن وطن كو كاليتي مولون في كنا ساواوي رند قرآن على ودهن مؤين دي كتابة دون كادي كو دون دون بري مؤين دي كو كو جومي سبحانه وتعالى ويات كوتن إن تبدو الصدقات فنعم ما هي كنا نون wa in tukhfuha wa tutu al fuqara fa huwa khayrun lakum ko ɗum ɗo no moƴƴi kono sa waɗi ɗum ɓuri moƴƴude ɗum noon machallah e e inde monsieur le eɗen jatta ardiɓe oɗo société bandiraɓe ardiɓe diina sernaɓe on jattama no feewi on juurama no feewi on ñaagama duwaw nde duwantoɗen koye men e jamde men ndeɗo yete nde ɓura yarude yeeso eɗen gandi hande e to bange duɗal qur'an alhamdulillah no wano hanke hecci hankini nana wayi noon hande no kontini kono noon eɗen gandi ina waɗi caɗele kono noon caɗele ɗe fof no wayi no ngoori hande eɗen jogii waaɓe no ɗiɗo société ji ni ces droit geste ina dari hen doole mumen no ponno eɗen jogii ko wayno seni ko ina dari hen doole mumen no ponno kono noon oto jejjiten ɓeeɗo tawi ko ƴataade sénégal ina waɗi heen junngo muɗum ina yiɗi heɓɓitaade duɗe ɗe ina yiɗi dartinde duɗe ɗe walla ɗumen caggal ballal allah subhanahu wa ɗum noon eɗen jakori eɗen ɗamini eɗen jogii yakare mustaqbal o wona mustaqbal mo ngannduɗa ko mushrik e ko fate e wa taallum alquran al karim e, en mbawa junnade en jetti bandiraɓe ɓe fof en juurima ɗumen en ñaguima ɗumen duwaw wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun